tey bis bu taarixe la ci dund ndax euh, tey amphithéâtre de rentrée dañ koy def ngir ñi nga xam ni dañu leen a tabb ñu jàll ci concours boo xam ni ñaari junni ay jeunes sénégalais yu am bac def nañ ko ñoom ñuy trente premiers yi moo correspondre ak quota bi nga xam ne moom lañu war a jël mu war a nekk ay enseignants de PS dañu war a ci diiri ñaari at ngir ñu am métier jàngalekat ci wàllu tàggat yaram ci l'école yi tey nag mooy bis bi nga xam ni moom la ñuy leen di recevoir dalal leen fi tatagal leen ak it euh, waxtaan ak ñoom boole leen ak ñoo xam ni seen xarañte màcc na jëm ci wàllu woowu defaale aussi benn conférence inaugurale première leçon bi ko ñu woo benn expert seen Sène professeur Adama mu def leen leen benn conférence waxtaan ak ñoom ci métier bi ak euh, li mu wund li ne ci biir leen di xaar ak euh, li nga xam ci war a indi waaw ah, waaye nag nekk na waxtaan bu am solo ndax def boo donte ne professeur bi am na yu bëri yu indi waaye permettre na leen ñu weccoo ay xalaat. ñoom it ñu gis wax ñu ko gisee euh, kon nekk nekk na cérémonie bu bu la boo xam ni ñoom buñ ci jógee dinañ xam leen xaar ak it dinañ xam li ñuy dëgmal naka lañ koy organiser naka lañ li at moom nan lay demee nan laak naka la ci ñaari at yi nan la jàng mi nu muy demee ba buñ ci jógee ñu ku ci yàlla dimbali nga at mi nga am sa diplôme daal di liggéeyal état du Sénégal ñu affecté la ci collège yi nekk ci Sénégal ngir nga jàngale mbiru tàggat yaram élèves bu Sénégal yi. waaw loolu dafa am solo ndax euh, contact bi dina leen permettre euh, lépp loo nga xam ne waroon nañ ko xam ci métier bi ñoom ñu xam ko am nga xam ni leneen duñ ko laaj seen professeur yi ñu jàngal classe bu ñu demee classe rek. Hmm. lañ fay def mooy jàngal matière yi nga xam ne moom lañ jàng waaye ci leçon immigrale bi ñu jël matinée bi yëpp pour échanger ak ñoom ak encadrement bi ñu lépp leen xaar ci formation bi nuñ ko noosee nu muy demee leen ciy xaar rek li li ñuy def comme activité ci wàll stage yi. ak ci wàllu activité pédagogique yi ñuy def ak li ñu war a jàng ak ni ñu koy defee yooyu yëpp dañ leen ci dañ leen waxtaan ak ñoom ba nga xam ne day leer seen bopp nga xam duñ ñëwee rek suba incha allah rek ñu tàmbali cours yi waaw man maa ngi tudd Malal Sy mhm. euh, nga bokk ci ñu admis bokk ci ñu admis concours bi waaw woon tey pour journée inaugurale bi beaucoup de choses jàng nañ ci lu bëree bëri parce que daf ñoo woon importance wu EPS muy monsieur Sène le professeur là. jàngal ñu lan mooy njëriñu EPS et puis lan la ñu war a représenter devant les élèves mais également wan ñu ne c'est une fonction boo xamante ne yemul rek ci éducation physique du corps. mais c'est éduquer par le sport et pour le sport. waaw mu nekk daal leçon inaugurale boo xamante ne euh, tout le monde était satisfait. ñu kontaan ci bu baax a baax a baax. waaw euh, en fait euh, ni ñu jot ci annonce bi moom war na ñu ne ça sera une formation boo xamante ne de lay doon. nekkul loo xamante ne day ñëw yomb. parce que déjà première unité d'enseignement bi rek da nga sentir quatre composantes nga dem encore def anglais def informatique def yaa daal beaucoup de choses à apprendre mm. je crois que lii ñu wax fii nii bu fekkee ne ñun subir nañu pendant les yi ñu wax mm. formation bi on sera opérationnel dès la fin de la formation kooku moom am nañ ci yaakaar puisque dafa riche te vraiment